mais awa keroog bi ñu ko posé question rek loolu la wax dañu man cause bi nga xamante ni moo ma tax a jóg xaaruma ci ministre xaaruma ci kenn li ma ciy xaar mooy dëgg bu dëgg jotee incha allah rabbi dinaa ko wax fa ma ko war a waxee. te li ma yóbbu assemblée nationale aussi xam naa ko te téye naa ko su ma demee incha allah rabbi dinaa ko jëfee. Rafah de télévision culturelle et religieuse. Rafah TV waaw man maay Mouhamadou Moustapha Thiam di président association nationale handicap ca kanam en même temps président de la fédération des associations de personnes handicapées de Touba maa jiite fédération bi nekk Touba yëpp mais aussi daf fekkoon ma am association nationale boo xam man maa ko initié maa ko xalaat ba suñ borom dafa ma ci tawfeex ba 14 régions yëpp ma samp fa ay cellule di liggéey ak ñoom liggéey bu rafet. waaw loolu dañ ko dund ak contentement xamante ni. dañ ko doon xeex ay at yu bëree bëri bëri bëri man mii di wax ak yow association national handicap ci kanam chaque année dinaa def benn manifestation pacifique au niveau national nga xam dinaa dajale personnes handicapées yi nekk Sénégal ñi si ëpp majorité bi ñu daje ci benn région ñu xeex def manifestation pour que état bi jox ñu suñu àq ak suñu yelleef kon loolu bu ko defee pendant six ans ñu wëlbatiku gis tey ñuy dugal ay personnes handicapées ci liste législatif yi loolu dañ koy rafetlu beneen bi si mooy dañuy saluer parti Pastef li ñu def ndax ñoom dañu jël une personne handicapée ba noppi def ko ci place boo xamante ni rafet nañu njort ni mën naa jàll muy dix e position te jigéen la jox na cër jigéen ñi handicapé la jox na cër handicapé yi mu nekk ñaari mbir yoo xamante ni nit ñi war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax te dafa am lu am loo xamante ni keroog maa ngi ciy waxtaan ak soxna Awa lii dañ koo yéex a def warul woon toog ba 2024 mu jaaxal nit ñi nu naan dugal nañu personne handicapée assemblée nationale dafa waroon nekk lu naturel dafa waroon ànd ak Sénégal comme valide yi ni ñu doon duggee assemblée nationale noonu la waroon gunge handicapé yi handicapé yi di dem assemblée nationale. kon loolu bu amoon tey jéego yi nga xamante ñun moom lañ soxna soxla ci état bi kon état bi dépassé na bu yàgg-yàgg mais malheureusement dañu nekk si dëkk boo xamante ni ñuy politique dafa xaw a doy waar politique lay doon ba nga xamante ni duñu tal sax personne handicapé yi boo xoolee opposition bi mën nañu mën nañu def seen doo dégg ko ci wax problème mu handicapé dañ koy sax fàtte bu élection ñëwee nag ñu wàcc sur le terrain ñëw ci handicapé yi mais wax dëgg yàlla li nga xamante ni tey am na wane na ni am na femme handicapée boo xamante ni toppoon nañ ko xaaruñu ba élection jot ñu dooraa ñëw ci moom. am na dem si manifestation yi lacrymogène yi di ko laal mu nekk handicapé toog ci photo yi di ko jaayante di ko ñafe loolu aussi daf ñu siggil ñun parce que am na moroomam boo xam mi ngi toog ci biir këram jàpp ni moom. dañ ko war a xont rek di ko jox muy lekk di ko jox muy naan dara waru ko bu gisee Awa Seck di ko jaayanti ci télé yi dans le médias ba ëllëg ñu gis Awa Seck di xeexal personnes handicapées yi biir assemblée national dina influencer beaucoup de fem handicapées yoo xam dañ jàppoon ni une femme handicapée dafa war a toog rek croiser les bras. waaw nin ko gisee sur le terrain de bu continuer noonu incha allah rabbi sunu xel dana dal si moom. waaw parce que lu ñëwagul la wax lu bëri parce que assemblée nationale aussi dafa am loo ni. parfois dañ leen koy jiiñ dañ naan ku la abali bët fu ko neex waa fu ko la fu neex fa ngay xool donc loolu am na ñoo xamante ni parfois dañuy indi xalaat yu mel noonu mais awa keroog bi ñu ko posé question rek loolu la wax dañu man cause bi nga xamante ni moo tax a jóg xaaruma ci ministre xaaruma ci kenn li ma ciy xaar mooy dëgg bu dëgg jotee incha allah rabbi dinaa ko wax fa ma ko war a waxee te li ma yóbbu assemblée nationale aussi xam naa ko te téye naa ko su ma demee incha allah rabbi dinaa ko jëfee mu nekk loo xamante ni xëy na waxtaan nañ ci ay nit ay ak moom waxtaan na ci ay nit te nekk na ci millier bi gis na handicapé yi li ñuy dund handicapé la comme ñun donc yaakaar naa bu ñëwee ba dem assemblée national te am na lu mu war a mën a teg si taabal ji aussi parce que dañu am benn loi d'orientation sociale boo xamante ni ci jamonoy Ablaye Wade la woon yàlla dogal ñu bind ko ba xaatim ko ba mu pare ñu yóbbu ko assemblée national en 2010 ñu voté ko ba mu jàll. bi ñu ko voté ba mu jàll ak léegi yàlla dogal na euh, ñaari ñaari décret rek lañ ci signé muy euh, la carte d'égalité des chances loolu moo tax tey ngay gis handicapé bi dem bind demande de carte égalité de chances ñu ñu defaral ko ko mu am carte égalité. beneen bi stop mooy éducation inclusive sur cinquante articles ñaari articles kese la ci état bi signé donc awa xam na loolu. xam na ni loi d'orientation sociale bi cinquante article la ñaar lañ ci signé kon awa xam na ni am na 48 points yoo xamante ni dese na ko te moom moo moo ñu war a demal assemblée nationale moom moo ñu war a taxawal foofu et moom moo war a fexe ba ñu jot loolu handicapé yi jot loolu. waaw man ci saa si vocal yeeg appel yi ñëpp a dàqee sëñ Moustapha léegi nag lan la ñuy xaar. comme man maay président fédération bi ñu bëri man la doon woo léegi nag lu ñuy xaar léegi lan la ñuy def man leen yéen toog leen déglu ma incha allah rabbi lépp loo xamante ni war nañ ko ci def rek ak taxawaay boo xamante ni war nañ ko taxawu rek bu soobee yàlla dinañ ko def mais dañ cee kontaan surtout jigéen ñi jigéen ñi dañ cee kontaan parce que jigéen ñi dañ daan souffrir sama sëriñ billaay jigéen ñi da ngay gis ku jàng jàng jàng ba am diplôme mais day da ngay gis ku jàng am diplôme dem toog di tàllal loxo bu ñu demee ba gis na koo xamante ni yàlla dogal na mu dem assemblée nationale di xeexal noonu loolu day wane ni mbir mi nekkul sax si jàng kese yemul si jàng kese donte nag jàng mooy bunt bi gën a am solo waa ndax suñu borom subhanahu wa taala bi muy yabal yonente bi sallallahu alayhi la ko wax waaye nag xel yàlla borom xel yi lay waxal tey nga jàng ak nga bañ a jàng wa way laa nga jàng ak nga am xel mën nga taxaw askan ba askan bi gis seen bopp ci ci biir réew mi donc noonu lañ ko dundee ak contentement boo xamante ni te incha allah rabbi ci kàttanu yàlla dinañ fas yéene nan ko gunge ci ay xalaat fas yéene ko gunge ba nga xamante ni du wéet ci xelam bu demee assemblée nationale incha allah. waaw et aussi vingt cinq 25 handicapés yu nu investir si li si vingt y' a 25 yoo xamante ni maanaam euh, Pastef xëy na dafa gën a siiw. moo tax ñu wax euh, euh, Awa Seck Awa Seck aussi position bi ñu ko def bu ñu ko defoon personne handicapé yi kon ñoom ñëpp dinañ siiw parce que dañ ko def dix-huitième euh, position xam nga def ko si liste national bi te ku ne xam ne ne dix-huitième position moom yaakaar naa awa moom ak Pastef suñu borom mën naa def taw feex mu jàll mais am na d'autres listes yoo xamante ni d'autres partis yoo xamante ni dugal nañu ay ay ay ay personnes handicapées Touba Diourbel gii dugal nañ fa ñaari personnes handicapées trois trois personnes handicapées ñaari jigéen ak benn góor ak yeneen dëkk bu Adama Faye xaw ma dara ko ma sàll bi am na partenaire boo xam ne dugal na ay personnes handicapées y vingt cinq handicapés yu ñu dugal ci liste yi loolu nag c'est du premier loolu nag c'est premier loolu nag xeex la boo xamante ni dañu yàgg sur le terrain di ko xeex loolu nag day wane ni incha allah rabbi ci kàttanu yàlla bu ñu demee ba 2029 ñu demaat beneen élection législative incha allah rabbi ci kàttanu yàlla de mooy wane ni ñun suñu komba dana gën a jóg te dinañ soxla lu gën a raw Euh, député à l' assemblée nationale tey loolu Sëñ Tuubaa da waxoon Sëñ Tuubaa mu ne woon wa man xara baaba wa laj ku yàgg fëgg bunt bu yàggee ñu ubbi la na handicapé yi génn seen kër loolu aussi dama koy lancé na handicapé yi génn seen kër soit nga jàng wala nga bañ a jàng na nga génn seen kër ngeen ñëw ci association yi ñuy waxtaan xel yi di gën a ubbeeku ñu gën a jàppante gën a joxante loxo ngir gën a am doole ndax suñu borom moo ne waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu suñu borom bëggul séparation moo ni innamal muminuuna ixwa fa aslihu bayna axwaykum dafa wax ni ñun ñëpp ay mbokk lañu mais nañu nañu rafetal diggante mbokk gi mais waxaat ni borom xel yi laay waxal yaa baa bi borom xel yi laay waxal kon ñun bu ñu yàlla bindee ñu gëm ni être une personne handicapée ñu la koy jiiñ ci tànk wala ñu la koy jiiñ ci bët wala ñu la koy jiiñ ci gémmiñ yow fexeel ba buñ la ko jiiñ ci xel waaw fexeel bu buñ la ko jiiñ ci xel boo amee pas-pas nag ñu bañ la ko jiiñ ci xel ñu ñëpp nag ñu réunir si loolu booloo nekk benn incha allah rabbi waxuma la député à l' assemblée nationale mais mun nan dem sax ba président handicapé feeñ Touba parce que États-Unis président handicapé amoon na fa kon na handicapé yi gëm seen bopp rek dara jombuñu incha allah. waa élection yi moom incha allah rabbi dañuy ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa ñu tàmbale ko ci bisimillahi rahmaani rahim jeexale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin incha allah rabbi képp koo xamante ni da nga dëkk Touba euh, ñoo ngi lay mobiliser di la woo te nag dafa lu am solo loo xamante ni politiciens yi dañ ko dul bàyyi xel ci handicapé yi te lu am solo la handicapé yi dañoo am gannaaw man man man fi may voté sama soxna fa lay voté man fi may vote sama taaw fa lay voté man fi may voté képp ku ma am sama doom boo xamante ni am na âge 18 ans jëm kaw fi may voté lay voté ñun dañu am gannaaw parce que ni nu ni nu ni la dama lay expliquer benn kii sama sëriñ bi nga xamante ni moom laa su ko jébbalu dafa génne di voté ci élection législative euh, présidentielle bi mu génnee am keneen ku mu jàppoon voté la xam naa loolu bi mu génnee moo wokk sama doq rek comme sëriñ ak taalibe wokk sama doq ri nag naa ni que euh, sëñ bi doo ma dimbale rek wooteel diw mu ne ma maa bañ maa bañ maa bañ mais bi mu demee wallaahi azim ki nga xamante ni moom la bëggoon votel kooku la ñëw sànni ma kàrtam ni ma ki nga bëgg laa voteel wala al azim ñun am gannaaw ñun dañoo am gannaaw kon nanu politiciens yi di bàyyi xel et nan ñu jox aussi suñu àq ak suñu yelleef parce que li yàlla bind ci kaw suuf wërsëgal si doomu aadama yi ñun yàlla dañu si cëdd yàlla xañul kenn joxul kenn ñëpp la xañ ñëpp la jox waaw wallahu yarzuqu man yashaa kenn ku ne am na loola yàlla wërsëgal kenn ku ne am na loola yàlla xañ looloo tax sax yàlla boole ñu nag ñu nag na ngeen di dimbalante wa taawunu alal birri wa taqwa wala taawunu alal ithmi wal udwan na di dimbalante ci ragal yàlla ragal yàlla nag mentalement la physiquement financièrement kon loolu mi ngi ci valide yi mi ngi ci handicapé kon nañ ñuy bàyyi xel bu baax a baax waaw man moom maa ngi ci côté handicapé yi rek man moom naka jekk fa laa mës a féete man dama am benn sas boo xamante ni suñu borom dafa dogal fukki régions yi ak ñeent yëpp xam ma man foo dem ci Sénégal handicapé yi xam nan ma te dama jël sama sama ñaq bii sama sueur bii jaayante ko ak ñoom man ñoom laa faral fu ñu nekk rek fa laa nekk incha allah. Ah, effectivement am na am na journée bu am solo boo xamante ni ñoo ngi koy waajal fii ci Sàmm fii ci clinique euh, Serigne Balla Mbacké Mbuub muy journée de consultation gratuite boo xamante ni dafay ànd ak euh, waxtaan ak njabootu ñi waajur ñi nga xamante ni ñoom ñoo am ay doomu handicap. am na aussi journée de sensibilisation parce que quatre jour la mais journée de consultation bi dañ koy ànd ak. benn association bu war a jóge Italie ànd ak ay nasaraan ñu am benn convention boo xamante ni seq nañ ko ñoom ñu war a ñëw fii ànd ak ay médecins indaale ay garab consulter enfants handicapés yi ba pare jox leen ay pousse-pousse ak i matelas ak i couche yooyu yëpp ñu jàppale leen ak aidons les enfants handicap bi nga xam ne sama soxla moo ko jiitee muy ñetti association handicap ci kanam aidons les enfants handicap ak seen handicare seen handicare moom moo nekk Italie ñoom ñoo fas yéene ñëw ñu ànd ci liggéey boobu parce que liggéey boobu aussi liggéey bu am solo la xale moomin la xale xamul dara xale bu fekkee dafa am handicap nekk moomin dafa am ñaar ñu dal ci kawam kon dañ leen war di gunge di leen fàttaliku looloo tax loolu ñu ciblé enfant handicapé yi war leen a saytu xool seen eh, wér-gu-yaram fu mu toll bu ko defee ñu faj leen toppatoo leen gunge leen et ñoo ngi mébét sax am fi terrain tabax ka wutal leen kër goo xamante ni day nekk këru këru jaayantekat rek indi fa handicapé yi di toppatoo di leen jàngal yooyu yëpp daal euh, al le 9 la le 9 samedi le 9 novembre mais dimanche le 10 dañuy dem fële Mbacké def fa de sensibilisation ak handisport mooy sport bi handicapé di def le 11 aussi dañuy dellusiwaat Touba fii ci buntu kër gi sama buntu kër dañ fii def journée de sensibilisation boobu nag ñoo ngi ciy woo waa Touba yëpp plus particulièrement aussi ñoo ngi ciy woo waa Sam yëpp ndax dana bëgg woo askan bi population bi ñu toog waxtaan ak ñoom ngir ñu xam diggante valide bi ak handicap bi amul benn différence bu am seen diggante bu ko defee ñu gën a comprendre ngir liggéey bi gën a yaatu gën a kawe loolu nag ñoo ngi ciy woo ñëpp euh, le 13 aussi am nañu waxtaan boo xam dañ ko bëgg seq ak bàjjanu gox yi invité nañ leen comme bàjjanu gox yi ñoom ñooy dem ci gox yi di waxtaan ak askan wi ñoom it dañ bëgg impliqué leen ci biir milieu handicap bi ñoom it ñuy dem ci handicapé yi di waxtaan ak ñoom parce que handicapé bi am jafe-jafe toog ci biir néegam di jooy bu fa bàjjen bàjjenu gox fekkul di ko dëfal tey dem di dëfal valide yi kon bàjjen boobu dafa mel na mission bi nga xamante ni jox nañ ko ko xamagu ko bu baax loolu nag ñun dañ ko bëgg gunge gunge bàjjen gox yi ba ñu xam ni am na benn fuite bu am si seen liggéey boo xamante ni leen di xëccaat indi leen ngir ñoom ñu mën a ñëw envers les personnes handicapées jàpp ci liggéey bu baax a baax <laughs> waaw maa ngi sant waa Rafah TV di leen gërëm bu baax di leen sant di leen ñaanal nag euh, liggéey bi ngeen di def yal na dem ba kawe seen jot parce que aussi ñu bëri danu war a di roy ci yéen yéen ñiy toog di xalaat yéen ñiy toog di dégg suñu kàddu wala ngeen dégg sunu vocal ci benn groupe rek xalaat ni ñun war nañ jóg seeti Moustapha parce que message am war nay jàll loolu loolu c'est autre chose loolu lu rëy la te man xam naa loolu kon dañ leen di ñaanal yàlla defal leen jàmm defal leen tawfeex ba ngeen am studio bu gën a yaatu bi ngeen am suñu borom defal leen tawfeex ba ñu dégg leen fu kawe seen jort incha allah di leen sant leen gërëm bu baax di ñaanal sëñ Muntaxa mbaake mu yàgg fi te wér wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa de télévision culturelle et